mbokk yi mbokk yi nuyu nañ leen jaajëfal leen bu baax ñu ngi fii tey kër général bu Malika mu woote fi ndogu waaye gis nga xaritam yaa ngi noonu am di jàmmam yaa ngi noonu mbër yaa ngi noonu ay mbokkam ay xaritam ay njagañaaleem mbër yi nag ñu ci bari xaw ma leen kee mbër la woon mais bàyyi na ba mu gëjee bëreeg léegi xaw ma ñaata at la waaw moom moom dafa neex moom dafa saf xorom kii la 22 la war a bëre moom xaw ma ko moom it waaw moom Fall Assane Ndiaye moo tëgg journée bu xale bi bi bëree laa xam nag ki bi bëree Cheikh Super Diamano moom mi xale bi booy sëy gis nga ko mu ngi noonu euh, général Malika kële moom it caatu yaraax la mujjee bëreel moo waral coow lu bari li mooy Bulldozer xam nga ko champion la boo xamante ne vraiment kenn du ko présenté ci làmb armée ngi noonu moom it moo waral a mbay guy bi yàggatul tuuti xale bële xale bële sol lakoste bu weex bi wax naa la ko bàyyi ko xel ci làmb bëri na ay làmb yoo xamante ni bu demee saa su ne day wane boppam moom rek la majeur mu nekk xale boo xamante ni vraiment ah drapeau chef de l'état bi ñu ngi koy séentuwaat comme ni niñ ko gisee woon daaw Kaolack kii kenn du ko présenté Alioune Seye Junior waaw combat bi weesu daa ñëw arène nationale ñii ne daa juum ñii ne daa topp jëfi xale yu mel noonu waaye Tidiane la bëreel Tidiane Faye daan ko loolu yëpp dinañ ci waxtaan dinañ waxtaan ak mbër yi benn par benn mais dañuy njëkkee rek. waaw baa ji la ñu ngi ñu ngi lay ñu ngi lay dellu siyaar bu wërëwër. waaw mais fii moom xam nga ne fii nekkul tey kese de heure boo ñëwee nii lay demee. Ah, ah fi may fi may kër général. non mais loolu célibataire yi a def. non non Amos fii fii su ma nekkee sama kër fi fii noonu la nekkee sama kër. non non man tam dina tegal ndogu boppam. waaw loolu loolu dara mais tey fii moom fii la ñuy ndogoo. Ah. waaw. noo gisee tey seen diggante mu ma gis vraiment lan lan moom nit ku baax la. nit ku amul benn problème. nit ku am yëg ci doomu aadama. ku ne xam na ni maa maa ngi ci wàccaay combat mais chaque jour mu ngi may woo di ma ñaax ci entraînement chaque jour di di taal motom su ma guddee mu taal motom yóbbu ma xam nga te yooyu yëpp mu a moo moo moo maanaam mënoon na ko ci bañ a bañ a fekk kon nga xam nga kon ànd bi ñuy ànd di entraîné kon dëgg la dañ koy ñaanal moom xale bu ndaw la dañ koy ñaan te si kàttanu yàlla incha allahu rabi dee nekk roi des arènes incha allahu rabi waaw mais mais déglu ma la yi bu neexee boo bu neexee da ngay tiit sa bopp mais Bulldozer mais Bulldozer li jënd la si station yi. <laughs> recours non non ah. gars yi moo bu àdduna bépp ñu jox ndam daal noo amee baax na. <laughs> <laughs> mais daal ñu ma li ma lay wax daal mooy. ñu ngi ñëwaat te si kàttu yàlla bu ñëwaatee gars yi di nga xam ne mafia ñëwaat na. incha allah rabbi hmm. waaw. yow lu ñuy wax daal mooy ñun daal ñu ngi waaj. Ah, man am naa combat. yaakaar. yow yow foofu nga toll. <laughs> góor gi jàpp na foofu nga toll. góor bëre. Mor Kankang laay bëreel. wax nga dëgg Fallou Ndiaye kon jeex na. waaw man gi lu mu kay lim la def moom. Mm, daje ngeen de mooy loolu sa seet daje ngeen ngeen xëppante asib yéen. yàlla baax na. xale yàlla baax na. mu ne yoon. yàlla baax na mën a bëri am sañ-sañ. mais bu dee mën a bëri am am sañ-sañ lépp ngi fii kon. xam nga li ma daal mooy yàlla na yàlla defal ñu ware ak jàmm ak salaam. li ma ci wax xam lu man lu may wax. général yàlla ko yàlla may yàlla ko yàlla defal jàmm dafa ko gudd fan wér ak wérle. ba li muy yor ci làmb muy roi des arènes. suñu borom teg ko ci loxoom. waaw te am na te am nañ ci ya am nañ yaqin am nañ yaqin am nañ yaakaar. mais yow waaw yow a nga mu naan ma ñu may taal ba sëñ Babacar nekk ci ginnaaw gars yi ñuy liggéey mafia bi xam nga. mooy loolu yaa ma gën a xam. pardon léegi yaa ngi woor ñaata fan la ñu am tey. 22. <laughs> mbër siyaar daal de. maa ngi lay delloo siyaar bi. sant sëriñ Bamba bu wér. maa ngi waaw loolu la laaj tey. booy sey tey lekk yéen daal sa lekk moom la laaj. tey général bi moo xewle xam bu général bi xewlee. ñi suuf ñëpp dañoo war di lekk di naan di bége quoi. waaw. Zé nit ku baax la quoi. man ak moom yàgg ñu am ay relation mais dafa nekk nit ki nga xamante ne pour nga xam ko il faut nga jege ko quoi yooyu dafa nekk nit ki nga xam ne boo ko jegee boo ko duggee rek. bon dafa nekk nit koo xam ne boo ko jegee nga koy xam. mais boo ko soree mënoo ko xam su que ñun dañu nekk ay jàmbaar yi nga xamante ni bii te jàmbaar day bëgg jàmbaar quoi waaw góor yàlla dëgg dëgg dëgg day bëgg góor yàlla mais comme milieu bi ni muy demee yenn saa yi nga gis ñoo xamante ni sax dañuy dund noo xamante ni bii da ngay milieu bi moo koy laaj mais am na si mbër yi nga xamante ne bii tant que jege woo leen mënoo leen xam. noonu tey loolu indi wuñu fi tey Zé moo ñu fi indi. xam combat koy bëre. tey loolu indi fi. ma ni may bàyyi ma ñaanal Zé ba pare. ñaanal nga ko am jàmm. xamal la laa koy ñaanal xamal la laa koy ñaanal. Ah. yàlla suñu borom may ko combat bu rëy rëy rëy rëy. yàlla suñu borom mooy ko si ndam lu rëy rëy rëy rëy ah, parce que loolu mënul ñàkk si làmb quoi làmb ak defet ñoo ànd mais ndaanaan la koo xamante ni bii man la sum waay làmb def nga ci lu nekk bëre dóor bëre simple nga def ci lu nekk yaa ngi dégg dëkk la mu topp sa ginnaaw soo demee ba gis ndaanaan yi nga xamante ni bii ñoom ñooy ànd ak moom nga gis armée gis Alioune Seye gis Kara Doole ak yeneen gars yi ci des xam nga la ay bulldozer ay pulum gars yi mënoo lim xam la ñëpp dañoo topp si ginnaawam nekkul ne man la sum dañ koo ànd ak moom nii rek de dañoo topp si ginnaawam jiital ko comprendre nga ah. te man noon laa mel man ragal féete day xañu wërsëg voilà man le 22 laay bëre. man a Cheikh Super Jamono. dina neex dina yëngu <laughs> dina neex dina yëngu. baa lay bëggee. waa baa jiili delloo bëggee bu baax a baax. xam nga ne sama loolu la yàlla dogal dañoo bokk ñu mënut a séddoo. mooy damaa jël mbay guy gi li li ma wax yëpp ci yow dina la dóor dina la wal dina la yenu ba ci kaw dina la dóor ci suuf te yow sama xarit nga. xam naa gi lu ma wax da koy def. ah waaw yàlla nañu yàlla kàttanal rek xam naa benn conseil bi ñu koy jox rek yaa mën yàpp doole na jàpp lool rek ba bis ba. Ah. Mhm. waaw non nee gaynde mer la fanaan. ah gi yendoo ko nag <laughs> fanaanoo ko yendoo ko. dafa leen laa lay wax de ba ma dalay bëre ci làmp 2011 ba léegi maa ngi soog a bëre ku nga xam ne moo ma fekk ci biir làmb ñëw bëre ñépp ci làmb laa leen fekk. kenn du sama moroom sama premier combat laa duggandoog mbër mi ci même stade ñu bërëndoo ba ma si jógee ba léegi maa ngi soog a bëreeg mbër mu fekk ma fekk mu fekk ma ci biir làmb kon làmb ju ma jox cër la. Hmm, combat fonk nga bi nga fonk laa fonk. amul lenn lu ma war a wax ak sumay supporter xam nga lan laa lan laa seq ak ñoom. bëre daan ñibbisi ci kàttanu yàlla ak mbaaxam amul leneen lu ma seq ñoom. na bu fekkee da am ay gàllaaj ak yooyu def ay sangat affaire yooyu sant yi ñëpp dañuy tënk ñun bàyyi ba koor gi jàllam la kii day bañ nga yàq sa xaalis nee na dalaa yërëm day bañ nga yàq moom moo tal loolu ñu ñu ngi ci fexe jaamu yàlla ak fi ñu tënkoon rek ñu liñ nekkoon rek ci lañ nekk ba léegi moom moo jël mbiram yëpp tënk ko ci ay gàllaaj am ah, mottali la rek. mottali la rek. avant tout amal doole ju wóor am physique bu doy li ci des am ñaanu wayjur jur man leer na ma ne ku am ñaanu wayjur la dëgg la nag jamono yi xaw na metti tuuti rek mettiwul sax bu ma xoolee li ci ginnaaw du ma sax yëg ne metti na jili gaynde gi mer la fanaanoo guy gi defet nga jógee mu jógee ci defet te dina am faw yéen ñaar dina am ko dugg ci saako yi yàlla na ma yàlla suturaal ba mu a doon ma di nga xeex lépp lu làmb ji laaj dinañ ko def. di nga bëri moom. dégg lu ma xanaa lépp lu làmb ji laaj dinañ ko def. ñu bëri ci làmb dañ ne mbay guy gi moo la ëpp volume ëpp volume boobu est-ce que du la handicapé ci làmb ji. ah waaw maa ngi maa ngi samay kët euh, ñu ngi liggéey ci loolu man nag mënu ma tëba tëb toll ni ñoom c'est impossible tolluwuñu ay masse bokkuñu ay bind. mais man bir na ma ni ku ma ci jàppanteel moo xam ni kii ma jàppanteel mu ëpp ma ko doon te maa moom sax dadul yeggu foofu ci kàttanu yàlla ak mbaaxam non déggoo li ma la wax jiiri jiiri maa ngi soog a bëre ku ma fekk ci làmb ñi ma doon bëreel ñëpp mën naan ñoo ma ëpp expérience man ma bëgg ma bañ ñëpp ñoo ma ëpp expérience maguñu ma mais ñoo ci ëpp expérience man maa ngi soog a bëre koo xam moo fekk ci am. lépp dina ci am. ah, ah bu ma sañoon dañuy wari rek ñu jox ñu ñu jox ñu bis. Hmm. billaahi. waaw. waaw ah mais dara en ñun daal ay jaam la ñu ngi ñu suñu liggéey la ñu ngi ci nekk ci li ñu war a nekk. waaw ah, di taalal loxo tamit képp kuy jàppale arme rek mu teel a jàpp ci combat bi ñu teel a liggéey ci loolu. bu ñu waree rek mën cee nekk carrément waaw ah, yàlla bëri na sutura. jaajëf gaynde jaajëf. mademoiselle bu Badiane. waaw mooy nii la. yaa ngi kóol. maa ngi sant yàlla bu baax. yaa ngi Dakar wala yaa ngi Badiane. maa ngi Dakar maa ngi Dakar maa ngi Badiane. depuis kañ fi trois mm. xanaa làmb rek moo ma indi fi Dakar. la fi indee saison bi tëj na gars yi ngi ci koor gi nga jugee Badiane na ñëw. entraîneur bëri doole. chef de l'état sa morom yëpp dugg nañ lan moo tax duggoogoo ba léegi. non ñun xam nga Ziguinchor moom mooy loolu. lii mooy foofu noonu affaire mool fa. Ah. gaa lu ñu fay def baaxul. lu ñu def regroupement. amul regroupement daaw de bu may regroupement ji. ndax dama xëy Badiane rek tase bi ñoo na dem kii Mbour. seen non non c'est que dañoo xamante entre ñun mais ku ne keneen ki nga xam Dakar keneen doo xam day jékki rek ñu woo ñu daje xam nga mooy loolu. loolu loolu lu bëri. ay mbir yu war a dem compétition. waaw non loolu day yàq mbër sax parce que nit nga xam te ne il faut booy waajal làmb da ngay compétir ak say gars yi nga xamante ñoom tamit ñu xool la bu nekkee euh, da baax ñu xam ne yow da ngaa baax bu nekkee tamit baaxoo ñu xam ne baaxoo parce que booy dem làmb xamoo fa xamoo ki ngay fi fekk mais làmb da ngay day préparé wu quoi comprendre nga mooy yoon man instant yii ne moom gars yi mooy loolu waaw. catégorie daaw ban catégorie nga cent kilos. cent tamit cent kilos la par exemple. waaw. kon ñu daje jur incha allah dina dafay gaañ. ba toogal ah. bëri seen articulation yi baaxul. articulation man bokkuma si. ay zone ay sévi lii lu ne la yàgg. non gaaw a bëgg a seet. Ah, gars yi des moom mooy loolu waaw. Ah. waaw mais moom mooy loolu. daa buy jàmbat. bëri nga ñu daan la nga bind recours. def appel woo Sénégal gépp ba président de la république ñu jox la ndam xanaa léegi féex nga. waaw sant yàlla bu baax non mais demeewul noonu ñu ngi sant yàlla bu baax avant tout ñu ngi nuyu. àdduna loolu nag waaw ñu ngi nuyu àdduna di nuyu waa Malika. Uh-huh. xam nga di nuyu tey fi nga ñu fekk nii. muy suñu feef di nuyu gars yi ma fi ab yëpp xam nga. di jiital suñu grand yi fi nekk nii ñoom armé Papa Dia Kaka ñoom génégal ñoom Seyde gars yi fi nekk yëpp daal ñoom Tafa Badiana mbër yi fi nekk yëpp ñoom Poul Junior ku rek jum xam nga mais maa ngi nuyu ñëpp di leen bëggee dëgg yàlla di kontaan si yii nii Sénégal yi chaque année da koy def ñu ko si ñaan ak yàlla nag xam nga yokkute te ñu ngi siy gis xam nga chaque année incha allah mi ngi mi ngi mi ngi yokk xam nga ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax moom borom baax itam daanaan wax dëgg yàlla xam nga di ziar li ngay wax noonu nag amul baax yaa ngi may tooñ bon boobu benn média non ramb ji dama bëri daan ko yaa ngi dégg waaw dégg waaye yaa ngi def moom mu yóbbu victoire waaw d' accord mais dem mais mais reer reer yaa ngi dégg yaa ngi nii ñëw toog man man waxuma dëgg yaa ñëw di ah. noonu def nga cours vidéo bi ñu yóbbu en pause baaxul ñu def appel ñu jox ñu victoire loolu sant yàlla la. non def ñu ñun du ñu tànnibéer man dama man sama combat bi naan daan sax sama combat bi doon daan sax du ma tànnibéer man ku ma gis su ma daanee tey suba maa ngi samay entraînement nekkaat si di liggéey maa ngi si Modou na ñooñu bëre. Modou man bu yow. te sinon du bëre waat de. yow mi yaa xamul sa bopp yow Modou yow Modou Modou instant bi bu bëre woon man doom Modou Dieng maa man maa man maa adversaire am potentiel si gàmb instant bi bu bëree roog man doom adversaire loolu man moo ko wax bu bu ak man nii nii nii nii ngeen du bëriwaat loolu kay man maa ko wax mujj daaw a ñëw ñu bëree ay naataangoo ngeen si gam man damaa liggéey ba yegg si xam nga bu dul mujj du ma fi keneen. naa yéen ñaa neex na. kan. bawal booy bi doon bawal. bawal man Tafatine doo xam sa bopp. wala sa man. waaw Tafatine waaw ñu ngi dox suñu combat xam nga si moom nga desoon waaw si moom nga desoon. yaa ngi dégg ak promoteur bi ñu moom waxaale nañ budi boobu ba pare yaa ngi dégg pare nañ mais en tout cas ñun moom ñu ngi fi rek bu naree cool moom beneen affaire mooy loolu xam nga jaaxal mbëri jaaxal ma man mi mooy Bulldozer dafa lewet te Bulldozer mi may gis ci digg géew ak Bulldozer mi may gis nii dafay trompe ñu bari loolu lan la waaw loolu waaw mais sant yàlla xam nga xam nga ñun dañuy sant yàlla bu baax te yàlla moo ñu bindee nii ñu mel nii xam nga kenn ñu nag ñu ñoo yar suñu bopp yaa dégg man bi may nekk xale dama doon jaabante tey suñu kër yaay suba sama kër papa kenn yàgguñu ñoo yar ñoo yar suñu bopp xam nga loolu loolu yàlla moo ñu bindee noonu ñu mel noonu sant yàlla boo ñu gisee te ji mën nga ñëw bañ foog mbër mais bu ñu duggee si géew nga xam ne mbër kaamé ngay nii loolu yàlla yàlla moo ko defal xam nga sant yàlla nag ko dëgg foo nekk yor ambiance foo nekk xuloo xeex histoire te doo bëre waaw mais loolu man boo nee dama bëre da ngaa kataraag wala yow da ngaa demoon Togo wala ensemble ba nga ne lu tax man nga ne man du gëj a bëre non damay amay combat mu yàqu rek amoon naa combat ma ma yaa promoteur bi dem ba si biir comme li may wax rek yàlla dëkk nat mu yàqu maa ngi naan suukaas si ñëwoon nañu war a bëre 15 mai la ñu waxoon wala 15 mai promoteur bi woo na avance bi mu joxoon nañ jël mu may ko day dem États-Unis waaw ñu koy sant di gërëm ah, kii daal moo boole woon ak moom kii mooy bi nu mu tuddati euh, tamuy dawlal Eumeu Sène oto bi lañ nag moo ma boole woon ak moom waaye promoteur boobu noonu mu ngi dëkk Almadi quoi dafa ubbi benn genre télé perpervi moom la doon publicité joxoon na ma avance ba ma téye ko bañ signé nag bi des doore bi nekk bi nekk Pikine fa lañ ko signé waaye woo na ma ne ma may naa la avance may ñaan yàlla rek tamit promoteur bu ma joxaat avance tamit. mu mayaat la ma ko rek ndax ñaari avance yi muy nii man la su ma bañ a bëre ñu may jox may lekk rek. loolu yomb na trop. Ah, lu yomb rek murid daa war a bëgg lu yomb ndax sëñ Tuubaa ñu ko liggéey ci maa yombe bàyyi. bu ñu bëggul nu ñuy des kan moo bëgg lu jafe. maanaam yow yàlla la yàlla may lu jafe neen amin amiin waaw ah, kay déedéet bàyyi ko ah, dara yombul sëñ bi nag ñun yàlla nay yomb di bi nag man yàlla nay nooy ki may tëgalaat combat su ma ko joxee ci barke Seydina Mouhamad yàlla nañ ko jàppaat dat yóbbu ko Australie mayaat ma ko muy gën di neex la jox avance déggoo li ma lay expliqué muy neex sëñ bi déggoo li ma lay wax laa coono la Baye Fall di lekk te du entraînement loolu neexul li ma bëgg man la su mbaay mooy xaar man lamb ji ñaanuma ci ay ndam tekk ci gi laay ñaan Birisiri moo fi ëpp victoire amul xaalis. lamb ñaanu ma ci ay ndam de. lan mooy ndam. gars yi naan roi des arènes. sëñ bi déggoo may roi neex na waaye yàlla na ma ci yàlla may ay million boo amee ay bo léegi ma laaj la amal benn combat ñu jox la roi des arènes bi nga perte perte roi des arènes bi xam nga laay ñaan ci déglu ma ëmb seen ngi nii hmm. la mu daan ak la ma daanu boo ko tegoon ci place day xaw a def nii Forza quatre victoire la am xaw ma trois défaite xaw ma quatre victoire Zarko mm, ne bi làmb ji xam la mos jëriñ naan gars yi xam la bunt boo fëgg mu ubbeeku. yow ñëpp la loolu loolu yàlla moo ko def. loolu yàlla moo ko def. non man wax dëgg yàlla gi nit bi man dóoru ma martu man damay xët. waaw damay xët. te boo xët buntu ma expliqué la. Macky Sall mi nga xam ne mooy président sax day daw peloton si président France bi. <laughs> tey yow mii ki ki lay embauché nii bis bu taxawoon ak moom da ngay nekk foofu naa ko nii eh, wóor na yàlla sa site bi kañ yàlla na fi yàlla da bañ mu dàq la da ngay mar. ni ngay maral kooku yow am nga ku lay maral pour yow nga nga far ko yow ngay maral ka nga mar am ka may maral noonu lay demee loo xool xam ne markat nga sa patron bu ñëwee ngaa nga nii sa sib di kañ yal na la yàlla instant yi kañ ñeen ñëpp nee na ñoo jël di ko maral ak nga mën a mar. daaw am na lu defoon waaw loolu nag da ngeen kaa war a dooli waaw yow loolu na may wax. maanaam loo def mu jig la daaw da ngeen maa seet si tourné ak man émission nag dama jaxase ak àdduna bi rek. kan moo la jaxase yéen de barke Seydou. yéen jaxase ngeen ma ak get ba tax na instant yi lamb ji waroon naa ci am cinq minutes ngeen ne ma moo get ma topp li fi naan ay moo get day bale warta bale day sànni xaalis bi moo get dafa loolu la saaf. tëggal sama combat man la suma waay yéen a ma jaxaseeg moom topp ma may def fi dof chaque jour ngeen ñëw na moo get nee na ma topp di wax ay waxi dof mu ngi nii di séddale ay xaalis ma bañ cee am. man jëluma la man ngeen ma àq. man jëluma la ba pare ngeen indi ma suukaru kool ma teg na lu ngeen may nee jox ngeen may ay paquetu suukar rek te moo get bu ma envoyé woon man ma tekki. seen micro yi dee leen ko téye di defar bi sabili laa te ngeen bàyyi jaxase gi. kan moo la jaxase. yéen. kan laa la jaxase. waxal leneen. kan laa la jaxase. non yéen rek. benn journaliste bu defee ñëpp rek xam nga da ngeen koy def fu militaire. militaire bu benn militaire branlé ñëpp ay appuyé kon bu benn journaliste defee dara yéen ñëpp a koy bokk. léegi ndogu bi. Mhm. ñëw nañ fekk la fii kër général. waaw kay sa diggante ah waaw kay. léegi waxal man damaa bëgg lekk. man sama ñaari plat préféré. benn bi lekk la beneen bi si des bu ma ko waxee gars yi bàyyi non non ban entraînement. loolu sama meilleur plan préféré bu ma ko waxee àdduna tukki. ak kaa bëgg. oh. bi non xam nga bu ma ne entraînement te nekkul entraînement damay nekk naa féex. sama meilleur plan préféré. oh. <laughs> aya ma ko ah c'est que dama koy wax waaye sama mille plat préféré lan bu fi nekk naa day aana njaay waaye soo ne aana ma ne aana fekk nekkul aana nag nañ wax leneen. waa noonu la demee sama meilleur plat préféré julli la jàpp jaamu yàlla. Mm. subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billahi al aziz al azim loolu sama meilleur plat préféré. non bëre moom dinañ ko def nee ma ndax lan man daam lu ma lan. maa ngi ñaan ko jox Zia. man tey bu ma nee Malick Niang nañ ma ko jox bu bu ñemee instant yi nii nekkuma si lu ko daan nañ ko jox mu daan ko. Malick Niang mënul ko daanee. non bu fekkee gis nga sëñ bi gis nga ñu ñëpp toog fii nii bu coow lu bëree ko doxot du ko yëg waaye yow mi ko doxot di nga xam ne maa doxot comme ñu fi nekk naan oh, oh, oh, day jékki-jékki rek mu xeeñ. kenn du xam ku ko def waaye yow mi toog doxut xam nga ne man maa ko def Malick Niang nii nii ku ma boole woon ak moom mënu ma kaa daan ndax nekk gu ma si waaye boo ko boolee kee wax dëgg yàlla ak yéen waa yof na ko di courage soxor baaxul jaajëf